ban euh, Silane bii nii nii fii nii. waaw maa ngi uh-huh. maa ngi leen a fekk. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. hectare bi yëpp dañ koo mën a dox. 14000 ah, mètres carrés. ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. waaw pour man da ngeen may topp damaa bëggul leer rek de. gis nga courant bu bëggee courant day difficile bay bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko mën na pompe mën na lii. lu xew TV seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar te di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla mu def ko ci àdduna bépp di remercier encore une fois ñi nga xamante ne ñi ngi topp suñuy vidéo. di leen wax rek ngeen gën continuer di abonné wu di partager vidéo yi ngir gën a mën a yaatal liggéey bi di leen wax ni aussi am nañ benn page Facebook bu tudd lu xew TV également am nañ benn groupe Facebook bu ñu tuddee wax sa xalaat si fair play rek parce que ñun dañ bëgg lépp lu ñuy waxtaane ñu jëlee ci njariñ te pour njariñ man koy jóge faw lépp ñu teg ko ci yar ak teggin donc di leen invité à ce ngeen ñëw aimer page Facebook bi rejoindre groupe bi groupe bi mi ngi tudd wax sa xalaat ci fair play comme ça ñu mën di ci waxtaane lépp loo xam ne mën na jëmale suñu réew kanam numéro bi également aussi di affiché mooy sunu numéro WhatsApp képp ku am réaction boo bëgg a def bëggoon mu jàll ci YouTube bi mën nga ko envoyer par vocal ci numéro bi alors tey wàllu xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo cette fois-ci nag ça concerne ki xam ne moom la ñuy woowee Ouzin Keita parce que gis nañ tenue yi nga xamante ni si moom la sol jour bi muy def anniversaire mu doon vraiment tenue yu doy waar surtout tenue bu noir bi nga xam dafa habillé wu en drag queen nag bu ngeen ko déggee nit la boo xamante ni am na ci góor am na ci jigéen mais d'habitude ci góor ñi la ëppee dañuy solo ba mel ni jigéen bu ngeen xoolee tenue bi nga xam ne moom la Ouzin Keita sol da leen di wóor ne lii nii tenue jigéen la mais nag li nga xamante ni si moo ci doy à chaque fois bu nit defee dara ci biir réew mi ñu koy kaas nit ñi di ko jëlal part di ko défendre bu ñu waxee ñu ni viwam la dañ ci war a mën a maandu. et pourtant ki nga xamante ni moo tax ñu sàkk ñu di notre cher prophète paix et salut ñu koy woowee gën gi mbindeef moom moo wax ni nit su defee lu bon loo xam ne lu ñaaw la bu ngeen ko mënee ngeen dindee ko ak seen loxo. bu ngeen ko mënul ngeen dindee ko ak seen làmmiñ bu ngeen ko mënul ngeen naqarlu ko ci seen biir xol ñett yooyu noonu ku ko ci mën te defoo ko yow ak ki jëf-jëf ji yéen a bokk bàkkaar bi comme nag ñun jotewuñ ci Ouzin Keita ba mën ko dindee suñu loxo te yàlla may nañu ñu am foo xam ne mën nañ fa waxee nit ñi duñu dégg moo tax ñu ciy jël kàddu di ko wax ba pare teg ci di ko naqaru tey nit ki dèjà ñu ngi lay wax ni su defee lu bon te nga mën ko naqarlu naqarlu woo ko yéen a bokk àtte ba ma gis ñoo xamante ni si waxuma naqarlu dañuy jóg di ko jëlal paar di ko defendre te ku wax ñu ni la nga nopp ci parce que viwam la te nit day maandu dëgg la nit day maandu mais ci lan nga war a maandu ci loo xamante ni si ni ka koy def ba mu koy def daf ko nëbb maanaam nit dugg biir néegam def fa dara nga dem di ko gëstoog di lunjum toog di xool lu mu fa doon def yooyu noonu yooyu noonu ci lañ wax nit dafay maar koo xamante ni sii nii ba muy def li muy def daf ko nëbb mais koo xamante ni li muy def daf ko def dëkk bi yëpp di teg seen bët laqatuwu ci ànd ceeg fit ba pare am ñu koy dooleel loolu noonu ku ci mën a wax te waxoo ci wala ku ko mën a naqar te naqarluwoo ko yéen ñaar yéen a bokk bàkkaar te il est temps ñu jéem a changer sunu mentalité parce que je me demande genre bu mel ni Ouzin Keita nan la ko nit ñi war a mën a toppe pourquoi ñu war ko mën a jox trop d'importance tey ba mu war a mën a am benn influence nit nii ci suñu société léegi foo tourné Ouzin Keita ngay dégg Pawlish Mbaye temps yi maa ngi dégg am na beneen phénomène bu bees euh, je sais même pas comment on l'appelle encore Mame Fall Jolly te boo waxee ñu ni genre yu mel noonu dañoo baax ci réew mi parce que ay anti stress lañ te ñu koy wax xooluñu conséquence bu négative bi nga xamante ne si am na ko ci suñu société tey bu ñu demee ba góor di wax waxinu jigéen di def definu jigéen pour mën a retaanloo nit ngeen xam ne Sénégal fi mu toll dooy na waar critique na lool fii ñaata artiste comédien ñoo fi nekk bu ñu waxee nga rëy ba tëdd ci suuf te mosoo leen gis ñu def gestu jigéen tey ñu dem bal pour nit ñi retaan il faut que góor dem bay comporté woo comme nu jigéen di comporté woo di solo comme nu jigéen di solo di def ay manière yu jigéen pour ñu mën a ree soo waxee ñu ne baax nañ ci réew parce que ay anti stress lañ mel ni dañ leen di gën a may doole pour ñuy gën a mën a def li ñuy def te bu ñu jógee ñooñu noonu la journaliste yi daw di leen tàllal seeni micro lan lañ mën a apporter Sénégal genre boobu noonu lan lañ mën a apporter Sénégal le malheur mooy genre boobu noonu ñoom ñoo ëpp baat ci réew mi te ñoom la ñuy gën a considérer parce que déjà lu ñu bëgg tey am ko bu ñu bëggee tukki visa dina leen yomb bu ñu fëggee tey yenn bunt yi ñu ubbil leen ko et pourtant citoyen bi nga xam ni dafa bëgg a génn pour liggéey ñu xañ ko visa citoyen bi nga xam ne dafa am problème toog di ko kaas kenn du ko wuyu ñu jël koo xamante ni si mën nañ ko jàppe benn kurun la lu mu bëgg am ko avec ça ñu ne Sénégal dafa war a avancer am réew du lii moo koy avancé loo Ouzin Keita Pawlish Mbaye ak genre bu mel noonu amaluñ benn njariñ Sénégal yow ñoo xamante ni heure bu ñu waxee nañu dar seen gémmiñ heure bu ñu génnee solo nit ñi am luñ ci wax est-ce que tey Sénégal genre bu mel noonu la soxla pour avancer te lii buñ ci jëlul ay mesures état bi jël ci ay sanctions yu mat sëkk dina dem bu ëpp ay loxo parce que chaque jour nit def dara ñu wax ci wax ci wax ci quelque temps bàyyi ko nga xëy suba dégaat lu bees ñu waxaat ci quelque temps après bàyyiwaat ko nga xëyaat déggaat lu bees ba kañ si ça continue comme ça day dem ba nga xam ne ni ñu koy def. dañuy gën am fit bi ko def parce que dañuy xam ni après dara du leen di fekk xam ngeen ni Ouzin Keita ni mu soloo nii nii nii su fekkonte ni ñi ko njëkkoon a def tegoon na leen ay daan moom du ko xalaat a def mais puis puisque nit ñaa ngi koy def te dara fekku leen ci alors ko moom day am fitu pour mën ko gën a def alors ñi nga xamante ni ñoom lañ fi teg ñu war a mën a seetu lu mel nii ñoom ñoo war a jóg dimbali ñu ci lu mel nii parce que genre bii nii bu leen ci xale di roy day dem ba société bi kenn dootul xam lu muy nduru duñ leen taxé de góor jigéen parce que xamuñu au fond ñoom lu ñuy dund mais ce qui en est image bi nga xam ne moom la ñuy wane devant tout le monde nekkul image boo xam ne image bu rafet la te gis ngeen chaque jour que jëfee day gën di yokk léegi am na ci xale yu góor yoo xam te ni sax ba ñu soloo ba romb la yàlla xam ne ne doo xam ba xam jigéen la wala góor la léegi nii ngay toogee góor romb la sol yëre jigéen carrément wala mu romb la sol tuba jigéen carrément te moom mi koy def xam na ni moom li mu sol nii yëfu jigéen la mais c'est parce que xam na ni dara du ko ci fekk te loolu noonu tant que décision bi jógewul ci kaw ñu appliqué ko mu wàcc ba ci suuf du fi mën a jóge donc yéen ñi nga xamante ni yéen a gérer lu mel noonu ñu ngi leen di tàllal suñu loxo di leen ñaan ngeen dimbali ñu parce que lii nii bu continuer ci réew mi tamit dañuy gën di sonn du ñu mës a jóg ci ñaxtu gi ñu nekkee parce que du ñu mës mën a avancer ndax lii fu mu am suñu borom seetaan ñu rek ñu gën di dëkk di sonn di gën di souffrir à chaque fois dëkkee jooytu te du mës saafara alors tey loolu moo nekkoon suñu vidéo di dellu encore une fois di tuub di jégalu képp koo xam ne ñu fi wax laal na la ñu ngi jégalu bu baax a baax te xam ni loolu nekkoon suñu intention mais dafa doon mbir yoo xamante ni si nii mënuñu ko noppiwaale di leen rappeler encore une fois am nañu page Facebook bu tudd lu xew TV di leen invité pour ngeen ñëw aimer page boobu noonu. également tamit am nañ benn groupe Facebook boo xamante ni si nii ñu ngi ko tuddee wax sa xalaat ci fair play di leen invité ngeen rejoindre groupe bi pour ñu mën a waxtaan ci lépp loo xamante ni mi ngi xew ci biir société bi. numéro bi aussi sunu numéro WhatsApp la képp ku am réaction ci li nga xam ne moom la ñuy def mën nga ñu envoyé vocal par WhatsApp wax ji nag lépp lu fi jóg ngeen xam ni ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que doomu aadama moo matul di tuub encore une fois di jégalu ñëpp di leen jox dig daje ci beneen vidéo. incha ban euh, stilaan bii nii nii fii nii. Uh-huh. dañuy dindi mango yi neefe. yoon bi nii rek. dañuy dox ah, hectare bi yëpp. hectare bi yëpp dañ koo mën a dox. quatorze mille mètres carrés eh, ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. eh pour man da ngeen may topp damaa bëgg lu leer rek de. mille mètres carrés quatorze. gis nga courant bu bëggee courant day difficile bay bëgg de gis nga day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg de. en problème moo nekk nañ ko mën na pompe mën na lii. lu xew TV. seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor